ndax ku ne xam na ne lépp lu ñuy tàmbali lu nekk ñun dañuy ñëw ci sëriñ bi sàkku si ñaan laaj si ndigal yàlla dogal noonu nga xam ne noonu lañ defoon engagement ci ñaari mandat yi jàll bii yoon nag dañoo ñëwaat jëlaat engagement ak ñi nga xam ne si département bi wax sëriñ bi ni ko mel nu man Cheikh Abdou Bara Dolly day maa fa daa nekk di teewal sëriñ bi di teewal Touba waaye ren dañoo bëgg yeneen i Cheikh Abdou Bara comme ni mu ko limee nekk yi bokk ci coalition jàmm ak njariñ bi nga xamante ni sëriñ bi si boppam moo joxe tur bi xam naa ne ñu bare bari xamuñu loolu si sëriñ taxaa lañ jëlee turu jàmm ak njariñ loolu moo waral coalition bi Amadou Ba jiite ko ñu ne ñun kan ñu nga xam ne ñoo des département bi bala ñoo xaar ay Amadou mu di fi ñëw en tant que ñu bokk ci coalition bi nekk ci list bi ak ñi si nekkul ñëpp ñu àndandoo ñëw ci sëriñ mun Muntaxa mi nga xam mooy sëriñ Touba sàkku si moom ñaan laaj si ndigal te ku ne xam na réew mi metti na képp koo xam ne yaa ngi nekk di joxe dépense xam nga ni Sénégal métti na képp koo yaa ngi xam yaa ngi fay courant xam nga ni Sénégal métti na fii may wax a yow bu nee ba carotte di jar maanaam 300 francs benn carotte kilo bi mille xam nga ni Sénégal métti na bu nee ba boo jëndee courant 20 000 francs du diir une semaine xam nga ni Sénégal métti na bu nee ba ndox mu yokk xam nga ni Sénégal métti na bu nee tey ba nga xamante ñoo doon liggéey ñu leen di dàq. si seen liggéey xam nga ni Sénégal métti na bu ñu méttee ba nga xamanteni bu weer dee mun ñoo fay salaire xam nga ni Sénégal métti na te lool nak bu ni gàttandu wuñ ko ci kanam ni day gëna jëm kanam te metti bobu nak lañ bëgg fexé gar ba nga xamanteni ni tey loolu du aksi lool motax tax coalition bi ñu yor Amadou Ba jiite ko ñu fexé bu laaj ko majorité ngir ñu jox ñu ko ngir ñu mën a joyanti Sénégal tegaat ko delloo ko Serigne Touba mm-hmm. rawati nak kaddu yu ñaaw yi nga xamanteni mi ngi joggé ci Omar Diagne nga xam ku ne ni Omar Diagne état bi moko far fat ko ba pare encouragé ko si wax ju ñaaw jooju ko ci Touba ak kilifa diine yi ñun nag en tant que ku am Serigne Touba en tant que ku xam taalibi Serigne Touba nga Serigne Touba mënut a jóg di fayul bopp mais ñun taalibi Serigne a yor ko wax ni jumaay Touba ji am a yëraat wax ni képp koo xam kilifa diine nga da koo xam branchement de capitaux ngay def kooku yaakaar naan ñun waa Touba bu yoon def na jaaru na ñu wane suñu bopp ak suñu taxawaay wane ni kat mbañam kanam borom moo koy fajal boppam te am na ay loi yoo xam dugal nañ ko fa muy loi boo xam criminal si ngóor jigéen bi déposé naa ko peine bi déposé naa ko offense au bi nga xamante ni tey war nañ koo déposé ngir kilifa diine yi amaat seen jàmm ñu mën leen a aar comme ni def offense au chef l'état déposé naa ko fa loolu yëpp bëgg nañ ko mottali ànd ko ñii nga xam ne ay gor lan a jóge si département bi teewal seen Touba dinement parce que fi nekkoon nag buñu démé demee parti lañ fay nekkal parce que tay buñu ñu xasee sëñ Touba amul ben député bu ne ci département bi nek ci Pastef wala keneen def jëlal jël suñu matuwaay pour défendre loolu kon jàpp naa ne population bi daal bala ñoo def dara ñëw ci bi sëñ bi ñaanal nañu jox nañu ndigal dañ fas yéene ni ko sëñ bi santaane ñu defe ko lépp lu jëm ci mbirum police ci dëkk bi duñ ko def dañ wër nag nun ko mën a wëree waxtaan li ñu war a jàppale askan wi ci ay bale set setal dëkk bi pour que ñu mën buñ sa àggee ñu mën a watu la crédibilité notre credo